di leen baal xaq di leen baal xaq ñu nuy seetaan chaque jour commentaire yi ñu ngi koy gis waaye yenn saa yi dañuy nekk si yitte ak message yi lépp danoon ko bëgg a tontu mujj gi sax ni bëgg di def ay video mel ne yoo xam ne mooy tontu yi waaye daal di leen wax ngeen gën a abonné tey partagé tey sem waaw ni ngeen di partagé vidéo yi te koy sem tey abonné bu baax ndax fii moom mooy daara ji nga xam ne ne dan duñ la may jën dañ lay jàngal dañ lay jàngal nan la ñuy amee jën xam nga koo xam ne chaque jour day ñëw nga koy may danga koy jàngal nan la ñuy nappe mu napp di am comme yow ni ngay amee moo tax ñu créer lii pour ñëpp mën a xam lan mooy xam-xam tey ñu ngi leen indi nag secret bu doy waar sa wàllum kaaraange ndax lii boo leen ko gisee mooy ayaatu kursiwu muy allahu laa ilaha illa huwa xayul xayum laa taxaso sinatu wala namun lahu maa fi samawaati maa fi lard moo ne koo dagg par moom lañu dagge lii ngeen gis mooy kàkkataar waaw lii ngeen gis mooy kàkkataar képp ki xam ne neen bindinga ayatu kursiwa 66 fois wut deru kàkkatar nga fexe ba awee ko téere bi wala nga wut eh, deru kàkkatar fexe ba awee ko saaru ndomba amatul looy ragal du polis du ñoo xam ne ne dana rëbb pour bëgg laa jàpp du kortu du sacrifice du eh, fitis du gàllaaj goo xam dañ koy def si ndox yow daal tënga waaw tënga boo boo defee nag liggéey bi ba pare da ngay toog ñetti fan yoo xam ne danga koy génne sarax di ko saraxe ginaar gu weex ginaar gu weex rek ngay saraxe ndax dafa doon sangat bu doy waar dafa am na sangat am na ndomba waaw xam nga léegi jamono ji dafa am ñoo xam dañuy takk am ñoo xam dañuy sangu am ñoo xam dañu takk sangu moo leen di gënal bu dee sangat bi moom booy da ngay bind 66 ayatu kursi wu bi nga xam ne danga koy dagg fexe loo am si kàkataar bi loo si am rek baax na boo moom am na ñoo xam ne boo gisee nit ñi ñu naan eh, seeni yaram day soppeeku kàkataar la waaw dafa am looy jël si kàkataar Euh, boole ko saafara bi sangoo ko boo demee ba mer dëgg-dëgg nit ñi buñ la xoolee dañ da ngay ñuul wala yenn saa yi ngay xees ñu naan sa waay léegi day ñaari ñaari kii la yor ñaari leer yenn saa loolu lépp kàkataar moo koy def ndax kàkataar lu mu mënut amut kàkataar lu mu mënut amut si wàllu kaaraange si wàllu inne si wàllu loxos lépp kàkataar da koy def xam naa ne buñ demee ba si kanam. danañ leen fi jàngal boo xam ne loo xam ne si kàkkataar la pour wàllum xaalis nga xam ne ne benn billet boo xam ne danga koy lal si kàkkataar bi ba mu nuroog billet bi boo nuroog bi nag nga am noo ko def léegi billet boobu ngay boole yow sa xaalis képp ko jox xaalis boobu boo ko joxoon cent mille cent mille yooyu dina ñëwaat sa si yow waaw loolu nag xam nga ne ay mbiri kii la daal yoo xam ne kenn du ko wax waaw waa waa wàllu kakasaar bi ak ayatu kursi wu bi daal képp ku ko bind fexe ba am si tuuti boole ko saafara bi nga wut 66 euh, puso 66 lancet ak doomu kaani Tyson nga def ko si nga sangoo ko sept suur benn du dagg nag bula la tekk tekki say gàllaaj sànni fële fu la neex duggal fu la neex dugal waaw fu la neex bu ragal dara ku la xulli xulli ko waaw xam ne yow yor nga kaaraange dëgg amatul ragal lii mooy kaaraanga total lépp looy wuteeti loo xam ne dan la siy xeex nit dootu la si mën a la si dara waaw nit dootu la si mën dara kon nag ñu ñëw si yóbbal bi nga xam ne moom lañ leen di yóbbal saa su ne buñ defee ba xam ne ne leen koy may ñi xam ne ñoo abonné lan lañ leen di may tey mooy lan képp ki nga xam ne da wuti kayit danga déposé kayit mu të wala ngay wuti kayit mu të dangay sikkar war a faxnaahu makaanan aliyan 70 ba pare nga def suma sabbi la yasaraxu suma sabbi la yasaraxu nga def kaadadu kun mooy juróom-ñaar fukki yoon kayit woo ko def sunu boroom dana ko yombal ba mu yomb lool lool lool ba pare ngeen di sikar isa ja an nasrullahi képp ki nga xam ne danga bëgg foo toll say mbir di dox bu doon tag muy dox bu fekkoon kenn sopp la am ñoo xam moom seen bayra moom <laughs> eh, amunu bayra dara kenn kenn kenn du leen lijjanti loolu nag te leen di wax jamono ji ñu ne jamonoy sangu la dee leen sangu waaw dee leen sangu bu baax a baax a baax a baax képp ka xam da yëg sa yaram sentir sa dara muy tàngoor wala muy leneen nga xam ne ne nanga wut xasum xay ak ndoxum géej nga boole ko sangu ko juróom-ñaari fan bu liggéey nekkoon si yow sax da koy denni xasum xëy dafa baax xas ni wala sunguf yëpp dafa baax boo wutoon sunguf bi noonu nga baxal ko ba mu baax nga xaw a néew nuggal ndox mi nga sangu ko juróom-ñaari fan buñ la liggéeyoon sax day toj waaw buñ la liggéeyoon day toj loolu na ko faral def ko ak comme sexaw ni ngeen wut sexaw bu leen tudd tur wa nag comme ne comme misaal da damay jàngale nga ñëw naan duute jaay ma duute déedéet sexaw ngay wax waaw boo jëlee sexaw boobu nga bind juróom-ñaari lexlaasi nga boole ko moom def ko saafara sangoo ko da dalay ubbi day raxas sa yaram waaye lépp loo xam ne ne dang ko daa tàggoon ndax am na ñoo xam ne ni déposé kayit muy tax am ñoo xam ne seen wërsëg dafa dagg bis boo sangoo seexo boobu rek lépp lépp danañ day mel ne bunt yëpp dañ koo tijjee noonu kon nag ñu ngi leen di siyaare waat bu baax di leen wax daal ngeen gën a abonné nga xam ngeen xam ne chaîne bi seen seen la yéen a ko tax a jóg waaw tey partager vidéo yi te koy jox seen mbokk yi yëpp waaw tey sem bu baax bu baax ni mel ci tiktok bi ñu mel ko ci youtube bi mel ko ci instagram bi waaw ndax ñun moom leer lekk te ci yeneente bi dong lañu dox kon nag sa kaw sa kanam yal na ngeen am jàmm yal na ngeen am jàmm yal na ngeen am jàmm yal na ngeen